ŋaasaa euh, ŋaas la du du toog ak télé bi di jàkkaarloo moom di reetaan. <laughs> la damay jàkkaarloo chaque matin. muy suba teel may di leen déglu di reetaan. ndeysaan nag tey nag moom am naa li nga xam ne moom laa njàgg yàgg gént. macha allah leen kontaan nañu. très bien alors ci noonu itam ginnaaw bokk nañ ak yow mbégte bi euh, Baye Boye euh, neex na loolu nga toog di ñuy seetaan yàlla di def. ñu tase fas yéene waxtaan lu jëriñ askan wi kon am na solo laata nag ñuy jukki li nga xamante ni moom moo di contenu bi le dañuy dugg euh, soxna Fall Fofana ci suñu ab éphéméride faaw ñu fàttalante tey euh, ci bésu fàttaliku ab éphéméride la ñuy toll nous sommes aujourd'hui le 23 juin 2021 euh, je sais que quand je parle du 23 juin tous les esprits partent en mais avant 2011 jot na fi am lu fi xew en 1975 ginnaaw loolu nag l'auteur compositeur Abdoulaye Mboup décède dans un accident de circulation en 1975 di ñaan yàlla rek euh, ci euh, yaay ci yërmandeem. Um. Mhm. daal di ko. Euh, xare àjjana mhm. gën ko jéggal culture dafa nekk ponk boo xamante ni ñun dañ fa mhm. mëne te ku nekk culture rek séntu fa borom xam-xam ak borom xel ndax ku amul inspiration doo mën a nekk artiste te ci bind ñun dañu ci ay macha allah. bien sûr Laye Mboup mën nañu wax ne ne monument la ci musique sénégalaise. ndem si yàlla si di nit koo xam ne ku xarañoon la nag yàlla may ko mu amoon ouverture d'esprit xam nga culture moom ouverture la d'abord mhm. euh, te loolu yëpp mi ko doon jëmmal euh, doon wayandoog ay ñoom nday faat jimma jimma donc ñoon ñëpp ñu xamoon leen euh, mu nekkoon koo xam ne nii ñu ci ëpp sax laay mbuub nañ koy woowee donc mu nekk koo xam ne ku marqué quand même empreinte am la ci suwaaru ci taaruxu culture Sénégal donc moo tax nag ñu koy fàttaliku ba léegi nekkoon parolier bu mag également tey inspiré je crois ñu ci bëri ñoo xam ne dugg nañ ci way donc moo tax ñu koy ñaanal nag yàlla mi nga xam ne moo

noonu voilà du 23 juin regrouperont les différents candidats à tous ceux qui combattent une troisième candidature du président Abdoulaye Wade troisième candidature nekkat fait d'actualité ci bile jamono te président bi fi nekk bokkoon ci ñi ko xeex démb ak barki démb mhm. waaye nag euh, tey jii euh, pour cet anniversaire dañuy amal ñoom benn oui, pacifique Oui, euh, deux de, de deux côtés. Euh, xam nga le 11 juin le vingt 21 juin bu tôt mille 2011 da fekkoon Macky Sall mi ngi nekkoon ci kujje gi alors euh, ñoom ak ñi mu àndaloon Moustapha Niass gis ngeen ko te lay gàddu xeer ba ngand a ngand mhm. ne da koy da joor gaañi ci nit ñi gis ñu ci mel ni ay ama Dansokho ki nga xam ne mooy Cheikh Bamba Dièye également mhm. takkoon boppam kon ca fa nga xam ne moom mooy buntu assemblée nationale euh, mu di euh, fait bu marquant ci histoire tarixu politique wu Sénégal parce que nag lu ko waraloon mooy li jëm ci déjà ticket présidentiel mooy li ngay wax li président ak un vice président ak lu jëm ci quart bloquant mu di ne bu ñu jëmee ci élection élection ku am daanaka vingt cinq pour cent nga mën a falu donc loolu la askan wi jugoon nag ngir xeex ko pour wax ne ne euh, kii di Abdoulaye Wade troisième mandat mënu fi am mais malheureusement on se rend compte et on dira hélas tey jii nii euh, moom na ñuy dundaat cela veut dire quoi cela veut dire que qu'est-ce qu'on retiendra du m moo di ne rien n'a changé à part bu ñu mënul wax ne ne sax c'est encore pire alors Soxna Fall mu mel ni la répétition se fait euh, ci li nga xamante ni moom lañ fi bañoon askan bi démb a été très révolté tey dix ans après elle l'est toujours euh, est-ce que il ne serait pas temps peut-être de prendre de la graine de la situation waaw parce que bu fekkee ne boobaak léegi 2011 ak euh, ba 2021 mi ngi xaw a yàgg def na ab diir bu dee lanu dundoon boobee ba tey moom la ñuy continuer di dund euh, jot na nag ñu taxaw daal di xoolante ci bët xool lan moo doxul ak mm. euh, lan lan war a soppi ngir moo gën a dox ñu daal di koy def naam boobaak léegi ak def nañu ay jéego yoo xam ne ci wàll wu nekk ñi ngi koy essayer di def parce que kuy gouverner mooy planifier mooy prévenir également mais lu ñu ci mënti doon daal askan wi nga xam ne ñoom seen colère moom moo metti woon ci ñoom ba ñu gis loo xam ne président bi fi nekkoon nanguwul bëgg koo doxale euh, ñu wàcc ci mbedd mi wane seen opposition ci lu jëmoon surtout ci réforme constitutionnelle yi ak li ñu ne woon dafay bëgg a teg dooman entre autres lu mu ci mënoon dool daal jamono jooju ñi nga xam ne ñoo doon opposé wu bokk na ci tey ki jiite le président Macky Sall son excellence euh, askan wi nga xam ne ñoo ko fi teg tey jàppale woon nañ ko bu baax a baax ñoo génnoon soutenir ko ñoo génnoon àndoog ak moom ni ko wiiw looloo taxoon xëy na doole bi àggoon foofu looloo taxoon ki nga xam ne moo jiitu woon am recul bu mu amoon te teyit démocratie ci jamono jooju ñu saluer ko bu amee tey bañ di ko nettali tamit c'est grâce au président euh, Abdoulaye Wade mi nangu woon euh, déglu teyit fexe ba askan wi wane seenu naqar ci mbedd bi nga xam ne fa lañ am pour wane ko fa te xëy na lañ ci doon xaar am na yu ci dox am na lu ci doxul certes parce que dëkk moo ni mel noonu lay doxee waaye en tout cas à mon avis jot na ñu taxawaat xoolaat pour. Euh, reculer pour mieux sauter ndax lépp day doon njariñu askan wi ndax jàpp ma man ki jiite bëggul lu neex askanam ki jiite bëggul lu ñoŋal askanam ki jiite man damay jàpp ni euh, day def loo xam ne pour bu fi jógee ay way lay doon te way wu rafet lay doon koy bu rafet boobu yaakaar naa ni euh, loolu la ko ñëpp yéene Pape euh, Germaine waaye euh, mm-hmm. faw mu yéene ko itam boppam te mm-hmm. yéene ci doxalin lay daal di feeñ ci jëfin itam ci lay daal di fas yéene feeñ mu nekkoon histoire tarix dix ans après bu ñu naree dundaat li ni mel ñu doon wax ni vice président xëy na naam président Abdoulaye Wade lu tax xelam dajoon ko mooy dafay bëgg ëllëg bu fi jugee rek mu mun a falaat keneen koo xamante ni mooy vice président bi koy remplacer xel yi Sénégalais yi bañ lool nan dafa bëgg forcer doomam Euh, ci bopp nguur gi tey mu mel ni ci li ñuy gis avec euh, aussi bien les nervis aussi bien toute la situation politique du moment mm. mu mel ni tamit euh, dañuy am lu ñuy bëgg force ngir ñu nangu ko ah ngir rekk benn parti des ci bopp réew mi ba tey parce qu'on parle toujours du parti mm. ah, maître Abdoulaye Wade bi mu nekkoon ca 2011 2012 parti bi la bëggoon mu continuer di jiite bopp bi bu dee moom sax faluwul bu ko defee moom mu nekk ci ginnaaw di leen coacher tey ñu rencontrer la même problématique avec le le le APR. qui a envie de rester justement ci ci boppu réew mi. loolu lu muy wane rek <clears throat> moo di ne suñu politiciens yi ah, en fait ñoom ñëpp a yam <laughs> bu ñu bu ñu bu ñu nekkee opposition dinañ ràggu wane na ñoo fi gën. Ah. ñoom la ñoom ñoo mën a apporter la solution ñoom ñooy espoir waaye bu ñu faloo rek nga ne ak cim parce que par rapport ak li nga xam ne noonu la ñuy noonu la ñuy yoree askan la euh, te boo xoolee ce n'est pas l'exemple type peut-être de Sénégal ni ñuy mën a joxe mais boo xoolee en Afrique suñu président yëpp ñoo bokk ñu ñuy doxalee donc cela veut dire quoi c'est que l'Africain moo am problème ak nguur mm-hmm. alors au Sénégal mu ñu ci dellu see c'est pour dire que ñoom ñëpp on a parlé du m mais M23 dee na et on parle de M2D mm. tey jii ni les événements du 3 mars moo indi M2D mais tu te rends compte que ñoom ñëpp autant qu'ils sont boo xoolee ba ci biir li leen gën a intéressé xeex yu ñuy def lu ñuy appelé à la massification lu ñuy appelé à la mobilisation dara waralu ko lu dul pour seen intérêt bopp mais bu ñu mhm. faloo jël loolu yëpp teg na le fàtte na ne c'est le peuple est souverain c'est le peuple moo am mhm. mandat pour jox ko ku mu ko mënti neex pour mu nekk président de la république donc dañuy doxalee doxan goo doxalin goo xam te ne nii tey askan wi day mujj di jugaat te loolu mënoon na bañ a am le 3 mhm. mars mënoon na bañ a am du moment où on aurait les enseignements du 23 juin justement si on aurait appris tey jii nii li nga xam ne moom la ñu bëgg doxalee ko ci démocratie moom la ñuy bëgg ngir démocratie Sénégal mën fa wéyee c'est important Germaine. ci wàllum euh, population peuple boobu muy tudd léegi nii man ci laa bëgg a prononcé wu asma parce que tey jii nii bu ñu fàtte jot nañu dund ay situation yu jéggi dayoo yu métti métti métti tey jii dëkk bi fu ñu toll lépp yokk na lépp cher na kon buñ si naree yokk yeneen fitna yi nar a indil li nga xamante ne daf ñuy euh, retardel wala di ñu gën a yàkkal yaakaar naa tey jii nii mat na ñu bàyyi xel seen population yi nga xamante ñoom ñoo leen di jiit ngir ñu yërëm ñu tuuti ñu yiir ñu ñu xool ñu ñu ñu am suñu yërmande ak suñu kersa ndax peuple sénégalais jamono ju ñu toll nii sonnu nañ bu baax a baax. sonn nañu alors euh, point bi nga laal sànq d'une grande pertinence encore une fois mooy dix ans après on est toujours dans des manifestations et ceux qui sont euh, ci suñu côté. bu ñuy hmm. manifester ëllëg bu ñu faloo hmm. daal di war. Euh, ànd bi ñàkk coloré ñu gis ko ci biir est-ce que kon tey euh, du du du du jot tamit ñu saytu ba xam ndax manifestation bi ni ñu koy manifester est-ce que tamit baax na. Mm. est-ce qu'il n'y a pas des conventions derrière qu'il faudrait poser pour contraindre ces promesses-là euh, pour peut-être les matérialiser afin que nit ñi mën a am ci lu ñu jàpp ëllëg pour mën lañ topp. xam nga quand on président de la République <coughs> ci nañuy doog a wane sa véritable personne en fait. que booy lu ñuy wax ku du sëqat di nga nëbb sa jikko yëpp c'est comme góor ak jigéen bu ñuy bu ñuy mm. utante ku ci nekk xaj na am na looy nëbb sa morom loo xam ne ne